Alors, il <laughs> vient de nous rejoindre sur le plateau. L'éminent, nous voulons lay voir baax bonjour. bonjour. ah bonjour soxna Aïcha Diakhaté je suis le doyen euh, d'Embaramata, de soxna Salma di nuyu sénégalais gambien ñi seetaan yi. sénégalais gambien ñu ngi lay fay <laughs> ñun sénégalais ak wa gambien ñu ngi lay fay. dina ziar bu baax baax. Ah. <laughs> alors ñooñu ma leen fàtte. <laughs> alors dina ziar bu baax baax Limina comme tous les lundis da ngay ñëw ñun ci euh, actualité internationale. anti ak Salma Ibrahima Fall alors Salma ma bàyyi la ak Limina. oui Limina ma koy ziaraat bu baax encore une fois comme chaque lundi rek Aïcha dañuy waxtané géopolitique et je pense que euh, ayouba siñu wess waxtané won nañ la France wax décision bi nga xamanteni Emmanuel Macron euh, jëlone na ko ginnaaw élection européenne yi amone foofu am élection législative bu nga xamanteni mhm. dañ ko anticiper donc mu mel ni ñi ci jamono ji mais am ben taxawaay bu nga xamanteni Emmanuel Macron mom la euh, taxawé am ay discours yu nga xamanteni aussi mom lay euh, soulever niki bi kat donc je pense que Mame Birame Wathie dina ci def taxaw seetlu am ay sujet important tay nak mu daal di koy intitulé une la France une débâcle de Macron pour un réajustement géopolitique politique donc dañ koy bàyyi rek euh, déglu ko xool lan lay bëgg wax par là. Mm-hmm. waaw jërëjëf euh, soxna Salma effectivement tey lundi bi moom dama bëggoon un ñu génn euh, en Afrique. dem fële ca France nga xam ne. tey boo génnul Afrique sax actualité bi lay génne Afrique. <laughs> waaw gis tey moom toutes les pensées vers la France. waaw kon actualité bi génnee na ba Afrique effectivement ñu dem ba France xam nga il je pense deux semaines xaw ma trois. doon nañu waxtaan fii après élection européenne yi amoon nga xamanteni 81 sièges yi nga xamanteni mom lañu moom wa France danaka buñu démé élection yoy je pense que c'était le 9 juin passé mhm. euh, wa rassemblement national euh, nga xamanteni Marine Le Pen moo dit jiite ñoom ñoo ëppalé ay voix demoon nañu ba am je pense 30 et quelques pourcents ci élection yoy ah bi nga xamante ni résultat yooyu génn na réaction bi nga xamante ni Emmanuel Macron def na ko mooy dissoudre l'Assemblée nationale euh, Assemblée nationale bi nga xamante ni ñu ngi ko voté woon en 2022 deux ans yi sax euh, matagul ñu daal di koy dissoudre c'était pour moom ñu tëggaat yeneen i élection yoo xamante ni démb la am euh, résultat yi nag bi ñu yi nga xamante ni commencé na génn ñu fàttali ne France ñaari tour lay doon day am dans un premier temps benn tour ñi nga xamante ni amuñu cinquante pour cent ñu dellu deuxième tour bi nga xamante ni semaine prochaine lay am mhm. pour tout simplement ñu départager leen résultat yi nga xamante ni génn na démb nag li muy wone mooy déjà euh, ensemble bi nga xamante ni Emmanuel Macron moo ko jiite mu ngi ci ginnaaw a ginnaaw daanaka moo classé wu troisième Euh, rassemblement national nga xamante ni mooy parti bi Marine Le Pen jiite te élection yi nii ku tudd Jordan Bardella jiite leen ñoom ñoo am

Euh, am euh, euh, ensemble là, bëgg wax moy coalition bu mu jité ñu daldi am 20 et quelques pourcent donc résultat yoy di woné clairement que fiñ ñu ni France bi nga xamanteni ne ci élection européenne yi woné won na quelque part ne doyal nañu ci politiku Emmanuel Macron danaka loolu lañu confirmer demb ci élection yi nga xamanteni mo am. tey jii nii ñu bëri ñu ngi né li nga xamanteni moy les enjeux est-ce que le rassemblement national bu Jordan Bardella et Marine Le Pen nous am la majorité absolue ñu faisons une France a 577 députés boo a 289 am nga la majorité absolue vous avez une loi ñëwee euh, wala lo xamante dafa wara jall assemblée nationale wo coalition wo benen député ñom député yi nga xamante ñom lañu la am muy 289 mën na leen permettre ñu voter loi bu mais également mën na leen permettre ñu imposer un premier ministre ce qui veut dire que ni dañuy dem ci wàllu cohabitation hmm. mais puisque pour le moment résultat résultats leeragul wax naa ko day am premier tour ak deuxième tour mais en tout cas premier tour bi li nga xamante ni wane na ci ay résultats euh, rassemblement national en définitive entre 280 et 310 députés. Mhm. te bu yeggee ba députés moy comme le ma wax y day am majorité absolue bo xamanteni ni koy permettre du soxla député euh, nouveau front populaire Jean-Luc Mélenchon du soxla. Euh, comment dire Emmanuel Macron nous député nous nga xamanteni gagné nañ ko leen permettre non seulement ñu voter à la loi mais également ñu imposer un premier ministre C'est c'est seetloo sax daanaka. Euh, démb bi nga xamanteni les premières tendances commencé woon nañu génn ki nga xamanteni ne Jordan Bardella jiite listu rassemblement national mu ngi déjà gis bopam comme état premier ministre potentiel bu France ce qui veut dire que bu nekkee dimanche bi di ñew def nañu deuxième tour bi manam résultat yi nga xamanteni ni génn nañu démb confirmé wu mën nañu xalaat ne Emmanuel Macron premier ministre bi muy tabbu du mm-hmm. joggé ci partem opposition lay jógee je ngoo xam nga nag <laughs> moy danaka deuxième point euh, chronique bi parce que souvent buñu né au euh, rassemblement national wax Marine Le Pen ñu bari dañuy japp né euh, africains yi dinañu am problème té <laughs> quelque part ma japp né Le Pen le plus grand souci des Africains. bon ma japp né ay inquiétudes yu légitime puisque quand même Euh, euh, rassemblement nationale li nga xamante ne ni tey moo ko jox doole mooy que daanaka campagne am daf ko accès ci immigration nga xamante ni ñoom dañu considérer tey que ñi nga xamante ni dañoo jógee bitim réew di ñëw France di fa dugg si dañu bare bare bare bari ba <laughs> daanaka indil leen ay jafe-jafe ñoom ci seen nekkin mais également xañ leen ay opportunités yoo xamante ni français yi dañ ko waroon am mhm. léegi nag ñoom bu ñu nee émigré il faut très clairement que ñu xam ne Euh, euh, immigré yi jóge Italie taxul ñuy wax immigré yi jóge euh, Finlande taxul ñuy wax ñoom immigré yi nga xamante ni ñoo leen di déranger mooy les africains mhm. les noirs ak les musulmans li la koy gën a won mooy ki nga xamante ni Nicolas Sarkozy papam immigré la mhm. papam su ma juumul hongrois la mhm. Budapest Budapest le judo. kii di Jordan Bardella également mamam. c'est établi que italien la tey sax maa ngi <laughs> non ngi lire benn reportage bu ñu def buy wane ne maamam ki nga xamante ni moo jur papaam tey dafa convertir à l'islam ba mu ngi Maroc foofu la dëkk donc kii nga xamante ni suba mën na nekk premier ministre France na ñu jàpp ne ay maamam ay émigré lañ donc pour dire tout simplement que France su ñuy wax émigré émigré nekkul émigré yi jóge Italie wala yi jóge Espagne émigré yi jóge Afrique là ak immigré euh, bof bu ma Afrique subsaharienne comme nous mais également immigré yi nga c'est des musulmans les Algériens les Marocains et autres maintenant est-ce que politique bi nga euh, euh, euh, Marine Le Pen ak Rassemblement national mën nañu koo teg bu nekkee ni gagner gagné nañu élection yi mhm. est-ce que politique boobu mën na am impact ci la France ak Sénégal Maintenant, li ñuy wax France Afrique France ak pays africains. donc loolu li ma ci yàgg wax mooy que euh, euh, euh, xëy na bu nekkee rassemblement national ñëw na au pouvoir ñi nga xamante ni ñooy ay musulman nekk biir France dinañu gën a jànkonteeg ay jafe-jafe nga xamante ni ñooy ay nekk France dinañu gën a jànkonteeg ay jafe-jafe maanaam tey jii nii nga xamante ni tabaski bii paase rek ñu bari ñu nekk France mënuñu la wax difficulté yu ñu am.

danaka seen ak ak seen yelef ñu dem ba nga xamanteni ñi julli ci mbedd yeeg yooyu indi won na fi débat que dañ ko wara interdire que il faut forcément ñu évacuer mbedd yi bu ñu julli nañu dugg ci jàkka ji bu nekké jàkka ji fees na ñu xam faneen fu ñu jëm donc loolu yépp c'est des débats yo xamanteni mu ngi en France té wa Marine Le Pen ñom ñoom yëkëti mais également ñu def de sorte que maay dégg Barre la diko wax bu yagul dara que ñi nga xamanteni c'est des binationaux maanaam comme tey ji nii nga jël ku mel ni euh, euh, Kalidou Koulibaly mhm. bi national la dafa choisir tout simplement Sénégal comme nu mu mënoon choisir France ñu ne ci cas de figure yu demee noonu dootuñu permettre ati yenn fonction yi nga xamante nii dafa kawe ci état wu France ñu koy jox ku mel noonu maanaam koo xamante ne nii day am non seulement nationalité France mais également day am nationalité beneen réew ñu ne ñoom bu ñu jëlee la pouvoir dinañu dem ba loolu dootul amati tout pour dire que. africain yi ak euh, les musulmans yi nga xamante ni ñu nekk France ñoom moom il va sans dire que ni seeni i jafe-jafe dina gën yokk yokku mais maintenant relation yi nga xamante ni France am na ko digganteem ak pays africains yi jàpp naa ne que mu nekk Marine Le Pen que mu nekk Jordan Bardella ak ku mu munti doon France su fa accès relation yi day continuer comme ñoom lu ñu koy xalaatee. li tax ma wax loolu mooy te yàgg naa ko wax sax boo xoolee France nu mu structuré woo nga nga nga ngay jàpp ñu ne la. Euh, mooy quatrième réserve mondiale d'or mhm. te daanaka France amul benn or nga dégg tey Total ñu koy boole ci les plus grandes multinationales euh, ci wàllu biir te tey France daanaka amul pétrole donc pour dire que relation bi nga xamante ni France ak Afrique am nañu ko mënul deñ te France jógewul ci position de puissance bu mu nekk maanaam bu nekkee une puissance tey ba ñu koy classé ay cinquième c'est euh, puissance mondiale mhm. c'est parce que les ay pays africains yo xamanteni ni mu continuer di jël tout simplement une richesse pour nous comprendre que France mënul dem sans Afrique da nga koy xool ci football bi rek tout simplement nga jàpp ne tey bu ñu demee ba France ñu ne <laughs> du ñu jël. équipe bu lëmb quatre <laughs> ponk moo bu ñu demee ba nga xamante ne ni France aligné nañu onze joueurs yoo xamante ne ni comme ñoom ñu ko ñoom Marine Le Pen di waxee. ñoom ñëpp ay tubaab lañu. Hmm. France jàpp naa ne poule sax du ko génn. Ah, bu ñu demee bay jël ay coupe du monde ay coupe d'Europe yooyu c'est parce que am nañ ñu mel ne ay Mbappé am nañ ay Ousmane Dembélé am nañ ñeneen ak ñeneen léegi nag <laughs> ñoom. tant que africain yooyu ñu ngi leen di jëriñ di leen di permettre ñuy gagner ay médailles di leen di permettre ñuy gagner ay coupe y a pas de souci mhm. mais africain yi nga xamante di ñoom mënuñu comprendre seen présence foofu mooy ñiy dagg ay ñiy jël gaal gi di ñëw wala ñoo xamante ni dans le cadre du regroupement familial la dañu fexe ba euh, comment topp seeni i yooyu ñëw mhm. mais pour dire daal tout simplement mais mais mais Limina euh, foofu noonu nga nekk dama bëggoon peut-être ñu avancer si un parce que nous avons sax ñuy poussé ci débat bi depuis quelques semaines mais que euh, su né euh, chacun pour soi Dieu pour tous la woté nañu essayé xol Le rassemblement national bëgg tay ji on voit nettement que démb vote bi limu mu li mu mhm. c'est le racisme qui gagne mhm. ndax liñu liñu liñu campagne quand même nous avons gagné c'est-à-dire français batay intérêt dong moo ne des sun diggante mais amul ben bëgg wala ben benn sàkkuteefu nek en communauté am ndax loolu lañu loolu la ñu prouver même constitution sen gouvernement bi li ci wax légui légui mais légui am na des observateurs qui disent que on a envie d'essayer nañu essayer ku nek jël jël sa part ñu xool nu muy démé euh, non France du ko essayer France bu démé bay bëgg essayer couper ses relations avec les africains comme ni ko waxé sank moy africain yi nga xamante wala euh noir ak musulman yi nga xamante déjà ñu ngi ci dëkkam. xëy na ñooñu ñoom mën nañu mettre en place ay politique yoo xamante ne nii dañ leen di gën a xatal France. tout simplement mais maintenant quant à que politique bi nga xamante ne nii am na diggante France ak pays africains yi maanaam ñu dem ba toog di yaakaar ne africains yi kat jarul ñuy xeex Marine Le Pen bu yegsee dina fi dindi franc CFA. Mhm. loolu laay wax parce que dafa am ay politique yoo xamante ne nii. dirigeant français quelle que soit cette position quelle que soit idéologie nous avons am l'air leer France bu amul Afrique nous continuer la preuve depuis un certain temps a ngi dégg bi nga xamante coup d'état bi am Niger Le Niger commencé à ay des am par rapport la France nous ngi naan une coupure d'électricité en France nous ngi le le courant bi gën a fof. lan moo waral que 56 centrales nucléaires yi nga xamante en France di leen di permettre am courant dans uranium bi li ci gën a gën a Niger et c'est la même chose Nous naa la ko que la France est classée ñu la classé comme quatrième réserve mondiale d'or or. te daanaka amul benn mine d'or boo xamante ni am na foofu daanaka li nga xamante ni moo fa nekk lépp ci pays africains yi fii lañ koy jëlee. Mhm. léegi nag yow bu nekkee ne bëgg nga quelque part satisfaire français yooyu nga xamante ni ñoom jàpp na ñoo jàpp ne seen dëkk dañu leen a xatal nga ne da ngay doo yem ci. quelque part bundu xataal africain yi fa nekk léegi da nga bëgg a couper les ponts entre les deux pays hmm. wala entre les deux continents wala ñoom seen dëkk bokk ak suñu continent bu boobaa ñoom ci seen bopp dinañu comprendre que ne France mënul dem sans l'Afrique parce que Euh, puissance bi nga xamante ni am na ko niveau de vie bi nga xamante ni français yi am nañ ko nga xamante ni tey on te dit que en moyen chaque français daanaka état bi dina def ci yow 3000 francs en terme de de de de de prise en charge sanitaire. nga nga xam quelque part benn niveau de vie bu kawe la tey jii nii Sénégal amul kenn koo xamante ni mën na la wax ne day feebar te saa yu feebaree état du Sénégal dina ko jàppale ou telle chose. mais dem nañ foofu ba mun ko quantifier. ñu dem ba nga xamante day am ay RSA ay ñoo xamante ni liggéeyuñu ñu leen di fay donc niveau de développement bu bu ko France amé nekul ne dañoo dàq liggéey africain yi nekkul ne dañoo gën a yeewu ñeneen mais c' est tout simplement parce que à un moment de l'histoire jóge nañu seen i continent ñëw fii en Afrique noot ñi nga xamante ni ñoo fi nekk di jël seen i richesse di ko yóbbu foofu nga xamante ni mooy seen réew tout simplement. oui mais euh, li Aïcha wax léegi je pense que je peux dire que africain yu bëri même inquiétude la ñu am ci àddina wërngal ko parce que gis nañ débat bi nga xamante ni moo am fële ci États-Unis aussi entre euh, Donald Trump ak Joe Biden ñuy wax que Joe Biden tey jii. Euh, dafay gën a favoriser li nga xamante ne moo di politique migratoire alors que tay bu Donald Trump ñëwoon yëf dina gën a tar ci africain yi est-ce que jotul kon ñu comprendre que euh, euh, l'Afrique aux Africains dafa jot pour ñu xam ko mais que ça soit les États-Unis voilà la France ñom ñi nga xamantene mom lañuy gëna ñuy gën a ñoŋal di seen ay intérêt mais du nek ci walum contrat wala autre peut-être politique bi lañuy ñuy mais mm. euh, lu li nga xamantene mom lañuy gëna mettre en avant en tout cas moy li nga xamantene moy gëna gën a suuxat seen réew euh, waaw tout à xam nga euh, ku melni le général de Gaulle da doon wax ne Euh, les états n'ont pas d'amis ils de que des intérêts maanaam euh, euh, bu ñu amee ay relation nekkul ne da ma neex moo tax ñu koy am mais c'est parce que xalaat naa ne am na loo ma mën a jëriñ mm-hmm. donc bu demee ba toll ci état d'esprit boobu te nag li xew France ni daanaka moom la ñu nemmeeku ci yeneen i dëkk yoo xamante ni ñu ngi Europe nga xamante ni extrême droite bi daanaka moom mooy gagné élection yi wala moom moo ci am voix yi gën a sakkan nemmeeku nañ ko Italie nemmeeku nañ ko Hongrie également muy wane tout simplement que tey jii nii européens yi wala bokk ñu bëri si ñoom dañu jàpp ne jafe-jafe yi ñu commencé nemmeeku li leen koy yóbbee mooy immigré yi. maanaam ñoo xamante ni dañoo bàyyi seen dëkk ñëw di euh, comment dire xëccoo ak ñoom richesse yi nga xamante ni ñu ngi foofu léegi nag la solution man jàpp naa ne mooy ko tout simplement rek dëkk bu nekk xam sa bopp parce que ñoom am nañu droit quand même ñu ne seen dëkk la nii lañ bëggee ñu doxalee ko même bu nekkee ne africains yi ñuy siis defuñu dara lu dul topp richesse yi nga xamante ni dañ koo sàccee fii yóbbu ko foofu richesse yooyu la immigré yi di topp mais ñoom comme que gisee wuñu ko noonu ñu jàpp ne kat africain yi bu nekkoon dafa am ay liggéey yoo xamante ni yenn tubaab yi waroon nañ ko am africain yi dañuy ñëw xëccoo ko ak ñoom mais également indi leen ci benn mode de vie boo xamante ni ñoom dañu jàpp ne bokkul ak seen civilisation parce que wax naa la ko sax souvent bu nekkee ne africain yi sax nañ leen a muñ mais la euh, comment ñom dañu am jafé jafé yu pour mën ko accepter. Mhm. parce que jàpp nañu né ñom civilisation isla comment dire rom euh, euh, xaw ma nu ñu koy sax. gréco-romaine la am que quelque part lolu ça n'a rien à voir avec euh, l'islam que quelque part le fait que ñuy continuer tout le temps di gis ay vague d'émigrés yu ñëw jóge Algérie jóge Maroc jóge Tunisie jóge Afrique subsaharienne di ñëw di gëna euh,

pour me concentrer concentré wu ci match yi am na bu yàggul dara entraîneur du Paris Saint-Germain bi. Mhm. Eh, Christophe Galtier boo xamante ni ci problème yooyu donc la nekkoon donc pour dire tout simplement que dès bu nekk moom moo comprendre li nga xamante véritablement moom mooy lui ko mën permettre mu génn ci. Mhm. mais mu nekk ci loolu les français yi ñoom bu Africains, jàppee ne africains yi nekk foofu dañoo bari musulmans yi nekk foofu dañoo bari ñu ngi commencé changer cette mode de vie man dama Japonais, ne dañu war dem jusqu'au bout de leur logique Maintenant, ñu ne. comme que Afrique kat ñun ñu ngi continuer di jël seeni richesse te richesse yooyu ñuy jël moo tax quelque part ñoom amuñu lu ñu defaree seeni dëkk amuñu ay euh, comment dire richesse yooyu permettre leen ñu mën a Euh, euh, jox seen ndaw ay liggéey ba ñooñu di jël ay gaal di ñu fekk si fii donc lu ñu mën a def pour xeex immigration boobu mooy bàyyi leen ak lenn li nga xamante ni ñoom am nañ ko ñu exploité ko mais jàpp naa ne loolu du mos a am. Mhm. tubaab bi du ñu toog jamais ba jàpp ne li ñuy def africain yi teguwul ci yoon nañuy xool nan lañ koy changé. Mhm. africain yi ñoom ñooy toog ba jàpp ne richesse yi nga xamante ne moom moo tax tey Europe développé daanaka Afrique lay jóge ñun naka la ñuy def ba am ay dirigeants yoo xamante nii dinañu nekk des patriotes fexe ba ressources yi nga xamante ni Afrique am na ko ñu exploité ko en Afrique pour africains yi jëriñoo ko parce que jàpp naa ne tey jii nii bu nekkee ne euh, ressources yooyu mooy wax te boo xalaatul nag ci àdduna bi tey bu ñu demee. ba japp ne Niger ñu classé ci euh, dix pays les plus pauvres au monde té ñu né bokku na ci ñi am réserve uranium yi gëna a mag ci monde bi uranium danaka ressource la bo xamanteni mais bokku na ci yi gën a am doole bu ñu bombe atomique mënuloo defar bombe atomique te amuloo uran uranium. am na centrale yoo xamante ni benn centrale bi rek mën na la permettre nga leeral dëkk bu toll ne Dakar te loolu pour mu am uran uranium bi nga koy jaarale. Mhm. donc dëkk boo xamante ni am na recherche yu toll noonu bu yàggul tamit dara tamit doon nañ fi ex doon nañ fi waxtaan ma leen di expliquer pétrole bi nga xamante ni ñu ngi koy jëlee Niger. bëgg koo jaarale Bénin. pour jaay ko chinois yi. Mhm. donc recherche yooyu yëpp nga bëgg koo am te tey jii ni soo jotee ak Nigéria bu Nigéria meree day couper 70 pour cent ci sa courant. teew nga am uranium bu buy leeral France di am pétrole booy jaar ci booy jaay Chine mais mënuloo am courant boo jox ñi nga xamante nii ñoom ñoo fa dëkk loolu ce que ça fii tout simplement mooy que euh, njiit danaka ñom mom lañu amul woon njiit ñi nga xamante ñoo fa nekkoon mais danaka c'est des sous-préfets français yo xamanteni effectivement lañu fa nekké won moy xol naka lañuy def ba yombalal France ressources yi nga xamanteni ni soxla na en Afrique. mais tay Limina on a l'impression que nonu da fay tourner quand même euh, au contraire parce que tay euh, préfet Dakar préfet France yo ñu amoon on a l'impression que légui c'est du passé hein ñi fi nekk légui comme muy putti ci comme ñi nga xam ne jël nañ pouvoir bi de façon démocratique comme le cas du du Sénégal ku ci nekk am nga taxaway boo xamante ni nii li ñu seetlu moom mooy nekk li ñu bëgg mooy l'Afrique aux Africains. <laughs> waaw mais loolu moo waral daanaka xam nga euh, je pense altine bi passé maa ngi la doon wax terrorisme médiatique bi doon am. Mhm. ci wàllu Burkina Faso donc mu leer na ne tey jii nii. ñooñu di occidentaux yooyu jàmmarloo ak ay leaders patriotes yoo xamante ni exploitation bi nga xamante ni dañ ko daan def seen dëkk ñoom pare wuñu pour accepter ko ni nga xamante ni mënoon nañoo wañ seen loxo ba continuer di am lu ñu bëgg ci ñoom mooy nga créer foofu insécurité maanaam fexe ba ñi ñuy woowe ay terroristes dugg ci dëkk ba lëmbee ko mu am ay zone yoo xamante ni état bi du fa mën a yegg si mhm. mais zone yooyu la ñuy jël di fa di ko exploiter mhm. <laughs> mais euh, bu ñu demee ba nga xamante ni ñoom comprendre nañ loolu wut ay armement taxaw pour faire face aux terroristes faneen fan nga mën a jaar mooy euh, manipulation à travers les médias pour jéem tout simplement xool naka ngay déstabiliser dëkk yi. Euh, très seconde rek à quoi joue Emmanuel Macron bu mu xamee ne bu tasee assemblée bii rek ko ci fekk ay cohabitation la moo taxal ma ko doon. non man kay li ma yaakaar mooy que. fi mu ñoom bëgg nañu asa front national mm. cohabitation am.